الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين noo ngi dellu si waat di sant ak sunu borom subhanahu wa taala ñoo ngi julli di salmal ci sunub yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moom la yàlla yónni woon mu nekk bu jëntalu yonent ab yonent dootul ñëwaat ci ginnaawam amut lenn lu ko sunu borom jottali la woon lu dul jottali na ko amut lenn loo xam ne dafay jariñ xeet wi lu dul digtal na leen ko amut lu leen di lor lu dul moytandiku leen na ko yal na la dëkkee dotti waam xéewal ci kaw yonent boobu te defal tawfiq ak yërmande njéggal ay saxaaba defal ko képp koo xam ne moo ñëw ci seen gannaaw comme ni ñu ko xamee mbokk yi ci jataay yi ñu fi doon am di waxtaanee lu jëm ci mbiram pas-pas ngir setal ko ngir bëgg a mucc ci bis boo xam ne su dikkee day sunu borom nee nañu alal du fa waaye doom du fa la fay jariñ ki mooy mu àndaale xol bu set xol bu fas lu dëppoog la yonent bi façon sallallahu la wa sallam ñoo ngi ci ñetteelu jataay di di waxtaanee fitnay masiixu dajjal mu nar a nekk jataay bu mucc ci waxtaanee masiixu dajjal tombam ñeenteel bi mooy ixdaruhu wa firu min fitnati aw min mulaqaati inna fitnatahu la azim dénk gu nuy dénk jaamu yàlla yi ñu wattandiku bu baax masiixu dajjal te daw ci ay xel lu ñu man ngir wattandiku ko bu fekkee fekkee nan ko ndax kat masiixu dajjal fitnaam yi lu rëy la te maa ngi tàkku ci tomb bii day kenn ku ne ci ñun mu joxaat mbir mi yitte defaat ak taxaw seetlu jëfandikoo ñorog xel ci njàngale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam déglu bu baax ndax fitna ji foo takk rëyaay bi rek romb na ko bokk na ci fitnay masiixu dajjaal bu feeñee ginnaaw bu ñu xamee lan ca jotoon a xam annahu yastaayinu bi shayatin masiixu dajjaal yàlla da koy defal day dimbandikoo ci seytaane yi root na ci yeneeni riwaaya yent yàlla bi nee na yàlla da koy yabalal seytaane yi nekk ci penku bi ak seytaane yi ne ci sawu bi ñoom ñëpp dañuy ñëw kenn ku ci nekk di ko wax lan nga bëgg rek nga wax ñu ko ñu defal la ko ndax ñoom loolu moo leen neex bal am na beneen riwaaya boo xam ne ñaari nit ñoo koy jiitu yoo xam ne ñoo koy xàllal yoon wi di koy escorteel balaa muy ñëw ñuy waar nit ñi di leen xirtal ngir nañ topp masiix dajjal ndax moo nekk ci dëkk te loolu lépp ci fitna yi la bokk xadis a ngi boo xam ne yonent yàlla bi mu ne bokk na ci fitna yi masiixu dajjal mooy day dikk fekk ci dëkk ab kaw nga xam ne li ëpp ci nit ña ñàkk xam da leen di muur su dikkee ci benn waay boo xam ni baayam deewoon na ca at yu yàgg ya ko xam ne yaayam faatu woon na ca at yu yàgg ya mu ni ko ee eh, yow diw est ce su ma dekkalee sa baay dekkal sa yaay ñu jàkkaarloog yow wax ak yow est ce que di nga gëm ni man maa yàlla kooka mbir mu nekk lu rëy ci moom lool mu ni ko waaw lool de boo ko defee dinaa gëm ne yow mii yaay yàlla yent yàlla bi nee na fa yatamathala lahu shaytaanaana mu daal di fexe ba ni bocceex ñaari seytaane taxaw seytaane bu góor nuróog sa papa ba mënatoo xàmmee ndax kii mooy sa papa wala ka faatu woon mooy sa papa seytaane bu jigéen taxaw kanam nuróog sa yaay ba mënoo xàmmee kii mooy sa yaay wala ka faatu woon la kon seytaane ñaar la ñu doon ku góor ak ku jigéen muy sa papa ak sa yaay nuróog ñoom ànd ak nag bu ñu dekk bu ñu feeñee dañ lay wax hey ittabiahu toppal kii laa wax ndax fa innama huwa rabbu kii mooy yàlla loolu nit kéemaan ci nit ñi lool su ko defee nit ki loolu mu gëm ni comme sama baay deewoon na ca at yu yàgg ya sama yaay kadalik ñoom ñaar ñëpp dekki nañ ba daan ma toppal kii kon kii mooy yàlla su ko defee mu daal di koy topp weddi yàlla subhanahu wa taala xadis bu ibni maaja solo na ko xaakim te xadis la bu wér bokk na ci fitna yi mbokk yi la rasoon ci saxihu muslim ci xadis bu gudd boo xam ni benn bu màgg moo ko solo bu ñu wax na waas ibni samaan mu ni benn bi yonent bi sallallahu alayhi wa dafa toogoon ak di ñu nettali ci masiixu dajjal nee na muy wax di wax di wax ba wax jabari lool yonent bi daal di arrêté dem dugg néegam ci ëllëg sa bi ñu dellusee nee na affaire baa ni ñu tiis jàpp ñu ba koo xool xana xar kanam da ngay xam ni tiit na mu ne yonent bi xool suñuy xar kanam ni waaw lu xew gars ni ko yow kat démb da nga waxtaanee masiixu dajjal waaye wax nga loo xam ne da nga koo réyal réyal réyal ba ñun dañoo jàppoon ni sax masiihu dajjaal gi fii ci ginnaaw taat tàndarma yi day xaar nga dugg ci néeg bi rek mu moo tax ñu daal di tiit lool moo tax mu ni fa xaffada fiihi wa rafa yonent bi yëkkati wax ji waaye daal di koy tuutal al imaamu nawawi boo delloo ci saxiix muslim mu ni fa xaffada fiihi wa rafa am na ñaari firi firi bu njëkk bi mooy xaffada fiihi yonent yàlla bi dafa ñàkkal solo bi si mbirum masiihu dajjaal ñàkkal ko solo ba da nga naa ah lii de garaaw su dikkee dara mucc waaye mu dem ba ci digg waxtaan bi wa rabba yëkkati ko kaweel ko ba fitna ji da lay dépassé ba yow da tiit ni bu dikkee doo mucc muy benn firib beneen firib mu ne fa xafada fii wa rabba yonent bi da doon wax di wax ca kaw di wax ca kaw di wax ca kaw ba baat bi dee wa rabba muy wax ndànk ndax lim doon wax dafa bari te fitna yi daa jéggi dayo mu ni ñaari façon firi yépp benn bu ne dana ko firi mu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni ah loolu di amul solo leneen lu tudd dajjaal a tiit waaye na xam ni masiixu dajjaal su feeñee te fekk maa ngi fi na leen wóor ni danaa dox seen digganteeg moom insha allah wallahi laqad sadaqta ya rasulallah waaye su masiixu dajjaal feeñee te ma fi kenn ku nekk na yëg ni mooy aar boppam kenn ku nekk na yëg ni mooy aar boppam waaye yàlla nag moo nekk sama kuutlaay ci ñi nga xamante ni ñooy jaam yi yént bi tàmbale di mel masiixu dajjaal ci la ma waxoon ci xutba yàlla weesu mu ni moom day jeune la dafa cuqaaral kawar bopp dafa rink ay tànk bët ba dafa pat su ma amoon kenn ku ma koy nirelel Abdul Uzza ibn Qatun la muy waajoo xam ne mi ngi bokkoon ci giir Xuzaa ma nga faatu woon ca jamono ju yàgg ja yéen yàlla mu ni maa ngi leen di dénk ku fekkee masiixu dajjal fal yaqra alayhi fawatiha surat al kahfi soo gisee masiixu dajjal bu la la ne fitnaal jàngal aaya ya ca suratul kahfi ca tàmbali bi yent yàlla bi tàmbale mu ne masihu dajal buy génn yaxruju xullatan bayna shaami wal iraq diggante Syrie muy Shaam ci réewi Shaam yooyu ak iraq fa la masihu dajal di génne fa aata yaminan wa aata shimalan bu commencé génn day yàq jëm ndeyjoor di yàq jëm càmmoñ yent yàlla mu ne yaa ibadallahi fasbuto ee yéen jaamu yàlla yi dal leen ànd leen ak dal mu mel ni saxaaba yi dañoo taqali ko woon ak seen sago ànd leen ak dal tamit jamono bu ngeen ko fekkee ndax boo àndeeg dal rek jëfandikoo njàngale yonent bi di nga mucc ci masiixu dajjal yonent yàlla bi saxaaba yi ni ko waaw masiixu dajjal bu ñëwee ñaata fan lay am ci kaw suuf yonent yàlla bi ni leen ñeent fukki fan la fiy am waaye lay kéemaan nga mooy ñeent fukki fan yi bu tuutee ci say bëtit xamal ni am na benn bisam boo xam ni comme at lay toll benn bis boo xam day gudd gudd gudd ba mel ni at am na benn boo xam day gudd gudd gudd mel ni am bis boo xam ne day gudd gudd ba mel ni semaine am bis boo xam ne day gudd comme seen bis yi kese te wallahi lii mbokk yi ci xeet kéemaan yi nga xam ni ku yàlla defalul tawfiq ak masiixu dajjal fab bi la imam ju mag euh, Cheikh Ali Qaari am na téeréem bu am solo bu ñu tuddee mirqaatul masaabih boo ci delloo ba muy sar xadis bi mu ni bis yii day bis la yoo xam ne yu kéemaan la waaye déglul saxaaba yi ñoom la leen yittee lool mooy dañuy laaj nan la ñuy def ci bisab julli yent yàlla mu ne waaw su fekk saxaaba yi ne yent bi su fekkee bis ma daa toll ni at kon nan la ñuy jullee waxtu it suba tisbaar tàkkusaan ci bis gee mbokk yi xoolal saxaaba yi jamono jooju seen doom mucc yitteelu leen jamono jooju ñoom ñu mucc yitteelu leen waaye julli mi nga xam ni ku ko dul def ab yéeféer nga te loolu mu leer ci bopp nit ñi julli ku ko dul def doo jullit baatab jullit ñi ngi ko jële ci julli ak koo mën a doon ci kaw suuf kër diine goo man di damay wax ni loola ngay wax di wax ni moo la tëree julli ay tappaleel loolu du dëgg yonent yàlla ba gaa yi dikkee ni ko ñun kat lépp lislaam danañ ko jël ba mu des julli yonent yàlla ba ni jàmmi yàlla nekkul ci diine ju amut julli fii ci suñu réew am na ay xeeti nit yoo xam ni duñu julli nit ñi baleen ca kontaan ca kenn waxu leen ca dara te wallahi bu doon saxaaba yi duñ tuddanteeg ñoom ay doom duñu fekkanteeg ñoom ci teen waaye duñu dimbalanteeg ñoom te wallahi bu seen kër doon tàkk kenn du leen dimbali julli ku ko dul def doo jullit ak koo mën a doon ci kaw suuf ñooñee la ñuy askanoo di wax ni am na lu ñu fu ñu teg ngir bañ a julli loola ay tappale la ay xutba dana ñëw ca kanam yuy wax ci danger yi bàyyi ci julli danañ leen indil ay tegtal ak leetar boo xam ni ñu ngi ko génnee ci téere yi ka nuy wax ni moom kat moo yore mbooloo ma nuy wax ni ñooñu duñ julli moom muy wetti loola te loolu dinaa ko ni ñëpp tekki seen bët ngir ñu xam ni nit ñi ci jëboppam jàng nañ xàmmee nañ léegi kon julli ci boppam ku ko dul def koo mën a doon foo mante askanoo dama ne wax doo jullit saxaaba yi ne yent yàlla bi nu ñuy def yent yàlla bi ni su boobaa na ngeen uqduru lahu qadra dee leen kam-kam le su ngeen da ngeen toog xam nga jant bi moom day gudd mel ni at su ngeen toogee nombre de yi ngeen jàpp ni tisbaar suñ ko masaan a toog lii danañ ko julli julli leen tisbaar su ngeen jullee tisbaar après ñaari waxtu ngeen daan toog julli tàkkusaan su ngeen toogaatee tuuti rek julli ngeen julli tàkkusaan defee leen ko noonu kon nii la saxaaba yi amoon yitte ci julli rawatina ci bis bii moo tax kenn ci borom xam-xam mu ni bii sariya di sariya la boo xam ne ci benn bis bii kese lay balaabal ci te wax na dëgg yénti yàlla bi saxaaba ko ni ko waaw wama israahu fi l ardi la masih dajjal gaawee ci kaw suuf yénti yàlla mu ne ngi mel ni taw bo ànd ak ngelaw ni mu gaawee gaawaay boobu lay yore te xam ngeen waxoon naa ni amul fu ci kaw suuf lu dul masihu dajjal dana fa teg tànkam bam mu des mag madina pour ak masjidul aqsa mu yii moom la yénti yàlla bi wax ni masihu dajjal du fa teg tànkam yénti yàlla bi bokk na ci fitnay masiixu dajjaal day ñëw ci ab dëkk bu mel ni suñu dëkk bi ci misaal mu ni eey man maay seen yàlla ndax gëm ngeen ni maay yàlla gaa yi ni ko waaw gëm nañ ni yaa yàlla masiixu dajjaal daal di taxaw ci li nit ñiy gis ndax lépp ay jabari kese la eey asamaan tawal léegi ci saaka asamaan dal di taw nit ñi di gis mu ni eey suuf génneel ñax mi léegi bala maa dem bala maa jógee fi ma taxaw ñax mi commencé di sax nit ñi gis mu ni eey xar yu loof yële ak bëy yi nga xam ni ak nag yi kenn gëj na leen gëj nañ leen rat yéen ñëpp damaa bëgg seen ween yi daal di commencé sottim soow ñu gis ween yi commencé sottim soow allahu akbar moo tax ma ne ne innaha fitna wallahi fi gaayati alxutura fitna la joo xam ni danger bi foo ko takk romb na ko yéen si yàlla bi nee na daal di romb suuf nii rek mu ni eey yow suuf si li nekk ci yow ci xeeti mbell or jama lu nekk sa biir rek laa bëgg na génn léegi léegi yéen ci yàlla bi affaire bi di gaawaay bi day mel ni yemb bu gis lu mu mën a produit def koy def ko lem su génnee moom njiit ak yemb ya su dawee ni ko yemb yiy toppee yéen yàlla bi nee na noonu la mbellam suuf bi di génnee di fekk si masiixu dajjaal mu dal di jóge foofu dem yoonam mu rogaat beneen dëkk ni hey man maay seen yàlla ndax gëm ngeen ma ñu ni ko déedéet yaay kàccikat bi ndax ñun xam nañ ne yonente boo xam nañu la mu ni asamaan bul tawati suuf bul génne gàncax xar yi jotoon a duuf sax laa bëgg ñu loob léegi te ni mu koy waxee noonu la ko yàlla di defee yént yàlla bi ne da gis ay nit yoo xam ca la ñuy xiifa ba ca la ñuy jaaree faatu yént yàlla mu ne sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci fitnaam day woo benn waaye benn jeune ni ko kaay mu ñëw waa ji ñëwee yonent yàlla bi ni ko sallallahu alayhi wa a maanaam masiixu dajjal ni ko kaay bu yegtee da dajjal jël li ñuy tuddee si mu xar ko ci digg bi ba waa ji taqali ko laccaw ndeyjoor bi daanu ji fële laccaw càmmoñ ba daanu ji fële yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mu daal di jaar ca diggante ba maanaam wane ne kii moom teqali naa ko ndax loolu tax mën a jaar ci diggante ñaari xar yi yonent yàlla bi nee na mu ne ko kaay waa ji daal di jóg waaye nee na su waa ji jógee waa ji day jóg di reetaan te nan ko wallaay li ngay def lépp daf may gën a doole ni yaay kàccikat bi foofu rek foofu rek fa mbir yooyu di takkarnaase fekk yàq na ci kaw suuf yéexee fi mbir mi di amee rek nekk id baata allahu isa bnu mariam foofu nag la yàlla di wàccee waata isa bnu mariam te xadis bu gudd la waaye maa ko dagg fi la tax ko fii mooy li des ci xadis mi ngi wax ci wàccug Isa te fekk nañu waajal xutba joo xam ni mi ngi jagoo feeñug Isa ñëwaatug Isa comme ni ma leen ko jinjëwoon ci xutba yi weesu ak feeñug Mahdi lan moo tax ñu tànn xutba ju mel ci tamit ndax dañoo ne ci jamono joo xam ni ay Isa ak ay Mahdi dañoo feeñ ñuy woote woo Mahdi ni ñooy Mahdi defe naa loolu moom ñëpp dégg nañ ko wax dëgg yàlla bu doon kenn ko wax sax ñu mën a ci kisaak waaye tegam kenn wax na ko keneen wax na ko rek loolu firnde la bu la war a wan ni loolu ay kàcc la balaa xam-xama yegg si am na ñu fi woote woo tamit isa ruuxullah wala maanaam isa ab façon buñ ko mën a tuddee ah isa ibni mariam wala isa ruuxullahi wala boog limaamullah luñ ko mën si tuddee ak tur buñ ko mën a tuddee dama ni isa mi wàccaat kenn la te buy wàcc du wàcc Afrique te buy wàcc du doon nit ku ñuul te buy wàcc du ñaaw dafay rafet te buy wàcc kawar gi day mel ni dañ koo peñe mu liis daanu soo ko séenee da ngay defee ni ku sangu la bay doog a bu yëngalee bopp bi lay toq ci peppi ndox day mel ni peppi jamaa mooy wat buy ñëw dañ koy seen ñaari malaaka lay àndal mu teg ay loxom ci kaw seeni mag deux pièces lay sol boo xam ne jaune clair lay doon xet gam yore ku ko noyyi boo dul jullit ñee ah lii koy wax dëgg yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku woote waa Isa kurut kii dama def ni kooka min ad-dajaajil al-kaddaabin yéen ci yàlla bi yéen ci mujjantalu jamono dana am ñuy feeñ ñoo xam ne dajjaaluuna kaddaaboon ay dajjaal lañ ay kàccikat lañ ñoom ñëpp dañuy woote woo ak yonent waaye yonent dootul amati ginnaaw yonent bi hatta ay Isa bu dellu si waatee ab jaam lay doon jaami yàlla du woote woo ak yonent moo tax ba yonent bi gisee Omar ibn al-Khattab di liir ay feuilles ci téere yu yàgg ya dafa mer moom yonent bi daal di xëcc feuille tànni ni ko Isa bu dellu si waatoon balaa am lu ko neex man lay topp man Muhammad moo tax kenn ci borom xam-xam yi dafa def benn téere bu am solo tuddee ko téere saxaaba yonent bi ba mu demee ba téere bay jeex dafa indi Isa ibnu Maryam annabiyu saxaabi te Isa yonent la ba noppi saxaaba la nax gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi isa ci boppam ak mahdi ci boppam ñaar ñii kenn feenagu ci xutba jooju ñëwagut ak lu mu yàgg-yàgg képp koy sikk sàkkaati mooy isa wala mooy mahdi nee leen ana seen masih dajjal ndax isa bu ñëwee mooy faat masih dajjal li mënta ñàkk ci xadis bi ñu xam ko rek mooy isa masih dajjal ca noona ci la ko isa di toppee ba rey ko ci benn barab bu ne ca fu ñuy wax baabul lut nga xam ne tey jii moo tollo tembe fi ñuy wax Tel Aviv comme ni ko yonent yàlla mesalee xool wallahi tur yi ak barab yi ak palaas yi da ko doon wax ba dafay mel ni yonent bi continent yi ci àddina bi da koo gisoon sallallahu alayhi wa alihi wa moo tax dañuy wax ni kii de yal na yàlla dëkkee julli ci moom sallallahu alayhi alfan fi subhi salla alayhi llahu alfan fi subhi noo ngi ñaan yàlla mu julli junni yoon ci yonent bi ci waxtu suba noo ngi ñaan yàlla mu julli ci yonent bi ñaari junne yoon ci waxtu ngoon boole ñaar yépp fulal nu ko sallallahu alayka ya rasulallah kon mbokk yi masihu dajjal isa moo koy rey te isa ma koy rey lay mel te it buy wàcc fa ca yi ma la wax ca lay wàcc te it melokaan wii lay wàcce kon képp koo xam ni ma ngay woote woo isa wala muy woote woo mahdi ni yooyu amu ci isa mii menn la ci asamaan lay wàcce doomi Mariam jala moom genn jala Mahdi mi nga xam ni moom mooy ñëwaat tamit su fi dikkee du fi paase juróom-ñaari at ku fi ñëw di woote Mahdi boo ëppalee settaa gàcc ma Mahdi mi may wax yuslihu llahu fi layla genn guddi la ko yàllay waajal préparé ko def ko général guerre mu feeñ wallahi rabbil alamina Mahdi bu feeñee ci jamonoom yàlla day def barke ba xollitu orange boo ko taralee mu tol ni bâche comme ni ko yonent bi waxee sallallahu alayhi benn nag ngay rakk rat dëkk bi yëpp mën cee naan ci sow mi ndax barke keroog ngay gis xeetu pom boo xam ni benn nit mënu koo aatan ndax rëy keroog la yàlla lay def suuf génnewaat barke ba ca yàlla defoon keroog ba muy doog a sàkk àddina loolu fi yëg amagut ko woote masiixu dajal wax dëgg yàlla sa gàcce nga bëgg a feeñal te yëgoo ko kon masiixu dajal ci boppam bokk na ci ay fitnaam li ci sunan abi daawud yent yàlla bi mu ni ci xadisul imran ibn al xusayn mu ni bokk na ci fitnaam yi mooy maa ngi leen di dénk ku dégg masiixu dajjaal na nga teey te daw bañ a dem ci moom di nga ñëw ànd ak a ak xam wóolu sa bopp waaye boo jàkkaarloo masiixu dajjaal ba mu fitnaal la ci fitnaam ya mu yore boo amul chance da nga bàyyi la nga façon fekk si ko ndax seytaan ku bari doole la moo tax ñëw na ci beneen xadiis yent yàlla bi dani am na waajoo xam ne moom bu ñëwee gis masiixu dajjaal ba seen fitna ya mu bu dee jël yaayam yeew jël baayam yeew jël taam-taam yeew yeew ay rakkam lu tax ndax mu ngi bañ ñu dem ci masiixu dajjal ndax wóor na ko ni ni ma muccee yàlla rek moo ma dimbali waaye ñii di jigéen ñi ku dem ci masiixu dajjal topp moo tax masiixu dajjal juif yi xale yi jigéen ñi ñoo ëpp ñu koy topp ak ñi nga xam ñoo faree kaw nga xam ni xamul dara ci lislaam bokk na ci ay fitnaam mbokk yi li la ci sahihu muslim ci hadisab abi saidin xudri yéen ci yàlla nee na bokk na ci fitnay masiixu dajjal bu feeñee nee na benn waay bu ngëm yàlla bu dëgër bu tar bu keemaane mooy pëllee langue gi rek mu ne man tey kenn mënu maa tere dem ci masiixu dajjal yéen ci yàlla bi ne mbooloom yépp yéemu ci moom ndax fit wi mu àndal muy waaw di waaw ba dem ba jub masiixu dajjal mbooloo mi ànd masiixu dajjal kar ko ñu yore jaas yi daal ni ko foo jëm mu ni ci kàcc kat bële laa jëm ñu ne koy awama tuminu bi rabbina yow xanaa gëmoo ni kii mooy yàlla mun leen maa bi rabbina xafa yàlla amul lu ñuy sikk sàkk ci moom kii ñu ngi sikk sàkk ci moom te yàlla kenn du sikk sàkk ci moom xam naa ni kii day kàcc kenn ci ñoom daal di mer ko rey mu keneen ci ñoom ni déet xanaa sun yàlla ji néewul woon ñu leen woon bu kenn rey kenn lu dul da ngeen ko indi ba fi moom kan mooy seen yàlla ji mooy masiixu dajjal ndax ñoom gëm nañ ko ni mooy yàlla ñu daal di jàpp waa ji indi ko ba ci masiixu dajjal taxawal ko yonent yàlla bi ne masiihu dajjaal daal di digle ni kii dafay dëgër dëgër lu fit tàllalal leen ma digg yi yonent yàlla mu ne ñu daal di koy tàllal dóor ko ay xeeti dóor yoo xam ni nit koo ko dóor mu dee yàlla defal ko mu am ànd ak dëgër laay bi mu siggee masiihu dajjaal ni ko hee eh, xanaa gëm nga ne léegi man maa yàlla mu ni ko antal masihul kazzab yow yaay kat bi laa wax yonent yàlla bi ni fa yumaru fa yusara bil min ci bisaar masiihu dajjaal digal benn waaye ni ko jëlul fi nga xar ci digg bi mu xar ko ba mu nekk ñaari pàcc nee na da koy xar xatta yufriqahu bayna rijlayhi da koy xar ba teqale tànk yi summa yamsi bayna dajjal bayna alqitaatayn dajjal ñëw ci diggante ñaari dogit yi di ca dox ngir wan nit ñi ni kii teqale naa summa yaqulu qum mu ni ko hey jugal yéen yàlla mu ne fa yaquuma fa yastawi qaiman waaj jug taxaw bi mu jógee mu ne ko atu minu bi est ce que gëm nga ma mu ne ko masdattu fiika illa basira gis nga li ngay def lépp yow ay dalil nga may dolli lii ngay def lépp firnde la may gën a dolli ngir ma xam ni yaay kàccikat bi allahu akbar mbooloo maa ngi teew fa Masiix fa digg Masiix Dajjaal di amee doole fa la lii amee mbooloo yépp mi ngi teew Masiix Dajjaal ne yooyu mooy yàlla ak ñaawaayam ak gàttaayam ak tuqaaral sawari bopp bi bët bi ma nga ringi ma nga rungi yii yépp ci xeeti sikk ay mi ngi ci moom yent yàlla bi nee na waa ji ba noppi daal di koy gàcceel ci digg nit ñi léegi nag mu mer mu masiixu dajjal bi mu meree xam nga nu muy def yent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam day jël waa ji balaa mu koy jël waa ji daal ee eh, yéen nit ñi lu ma mu leen metti ndax mel na man ci lay mujj fitna yi muy fitnaal nit ñi ci man lay mujj waaye bu weesoo bu soobee yàlla yàlla dina rëq diggam yent yàlla bi nee na mu jël waa ji bi mu jëlee waa ji léegi xolam jeex na mer na bëgg na koo rey mu daal di jël paas wala jaas teg ko ci guli gi bëgg koo rey yàlla subhanahu wa taala def waa ji diggante fiyam ba fii nekk weñ paaka du du ko mën a dagg allahu akbar yéen ci yàlla bi ne ne ma seet dajal xeeti xeeti xeeti ci digg nit ñi daggut mu rus gis nga bi mu rusee xam nga ne day jàpp ñaari loxo rek am fu mu ko ko feneen ndax bokk na ci ay fitnaam dafa yor lu ñuy tuddee àjjana yor lu ñuy tuddee sawar léegi mu xëcc loxo bi rek tàbbal ko te la ñuy tuddee sawara nit ñi di jàpp ne daf koo tàbbal te sawara sa fekk moom aljana la ko dugal yéen ci yàlla ba mu pare lu mu wax mu ni fa hada a'zamu shahadatin inda rabbil alamin kii moo gën a rëy ak shahada fa yàlla subhanahu wa taala nu mu defee martyr bokk na ci ay fitnaam mooy am na aj lu ñu tuddee ajana ak lu ñu tuddee sawara ci dañ ñuy gis loo xam ne ajana lay tudd loo xam ne sawara lay tudd ci ay xeeti xéewal ci ay xeeti mbugal lépp rek ci nit ñi gis yénti yàlla bi nee ni daj jaal yore maa ko gën xam sax ca boppam la ñuy tuddee ajana su tàng jër la bu la ca naree dugal sax bëggul bëgg la ñuy tuddee sawara àjjana ju neex la bu na ci ba ma xëy jëlal yent yàlla bi nee na képp ku yàlla na ca loola muy tuddee sawara muslul ci yàlla te nga jàngal ko suuratul kahf bi xadis bu imam ibni maaja moo ko solo xaakim mbokk yi maa ngi yaakaar ni jot a wax ci fitna ci masiixu dajjal wax dëgg yàlla donte am na yu des yu bari lii doy na sëkk ci koo xam ni yàlla def na ci moom xol bu gàddu pas-pas bu set ci gëm waxu yonente bi sallallahu alayhi wa tomb bu mujj mooy al awatim min fitnati dajjal léegi nag masihu dajjal ngoo gis nañ ni mel saay saay bu bon la yàqkat la fitnaalkat la suñ ci bëggee mucc nu ñuy def tomb bi ci njëkk ma ni aksir min adduaa baril bis ni ki looy ñaan yàlla tey muslu ci fitnay masihu dajjal rawatina nag ci julli rawatina nag ci taaya xadis a ngi ci sayu muslim abdullah ibne abbas solo mu ni ñaan bii may bëgg a wax yonent bi daf ñu ko doon jàngal dinu ko sax comme ni sëriñ bi di jàngalee xale bi saar ci alquran di ko ko sax allahu akbar ñaan koo xam ni yonent bi dafa sonnoon ci di ko saxaate di ko jàngale waate comme ni sëriñ bi sonnee ci sax xale beeg di ko jàngal ñaan bi mooy allahuma inni audu bika min adabi jahannam yàlla maa ngi lay ñaan yàlla na nga musal ci sawara jahannam mbokk yi sawara lu métti la sawara lu tar la yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ki gën a tuuti mbugal ca sawara boo xam ni yàlla daf koy solal ñaari xotti carax ci sawara te yuur gaa ngay bax nee kii moo gën a tuuti la ci sawara kon yàlla yàlla na nga musal ci mbugalum sawara mu tekki ni wa a'udhu bika min adabil qabr yàlla yàlla na nga musal ci mbugalum bàmmeel mbokk yi mbugalum lu tar la yonent bi nee ki yàlla nar sa daañ ko tanc ci bàmmeel tanc goo xam ni daa roofare paari joor yaag yu càmmoñ yonent bi teg ci ni wa audu bika min min fitnati almasih addajjal yàlla na nga nu fitna musal musal ci fitnay masih addajjal jooja fitna moom xam nan ko mu teg ci ni wa audu bika min fitnati almahya walmamat yàlla na nu musal ci fitnay dund ak dee am na ñoo xam ni balaa ñoo faatu leen ci seen diine ci seen addina am na koo xam ne buy dee dana daj ci fitna loo xam ne ñàkkoon a juddu sax a gën loola moo tax mbokk yi imam muslim bi mu nettalee xadis ba nag mu ni taawus day moo soloo xadis bi jëlee ko ci abdullah ibne abbas waaye xoolal ñoom niñ déggee woon njàngale yonente bi benn bis taawus doom ji daa julli ba noppi mu mel ni taaya bi daa gaaw ci moom mu woo doom ji ni ko kaay mu ñëw mu ne ko est ce que ñaan nga ñaan bi ci julli gi mu ne ko déedéet mu ne ko demal allahu akbar kon loolu moo lay wan ni ñoom dañoo gëmoon ni ñaan bi def ko farata la ci julli bal imam ju mag ju ñu xam jàngkat yi xam nañ ci may wax imam ibn hazm taalif na téere bu mag bu ñu tuddee almuhalla soo demee ca téere mu ne xadis bi ci zahir bi la ñuy jël di wane ni nit ki su fekkee moo ko tey mu bàyyi ñaan bi sax julleem day yàqu xoolal boobu dégg dégg am na ci borom xam-xam ñu gis loolu am na sax ñu gis leneen waaye nag am na ñu jàpp ni ñaan bi dafa war kenn waru koo bàyyi ko tey kon mbokk yi jaadu na kenn ku ne ci ñun mu jéem a dem ci ku xam mu bindal ko ñaan boobu bis ni ki tey mu di ko ñaan bokk na ci lay musal ci masix dajal bu la fekk ñaareel koy xaqiqal iman léegi nag bis ni ki tey góorgóorlu defaraat sa ngëm yàlla defaraat sa pas-pas ndax yii fitna day ku sa xol dëgër ni montagne rek kay mën a mucc xanaa déggoo yent yàlla mu ni fitna ja bu yegsee lañ bind ci jawab masixu dajjal képp ku jàng ku gëm yàlla boo jàngee boo jàngul di nga ko mën a liir kon waxul ku jàng waaye ku gëm yàlla la wax kon li jël ci sa ngëm bis ni ki tey xamal ni ngëm yàlla du kàddu rek bu ñuy wax ci làmmoñ gëm naa rek mu jeex waaye déedéet xol moo koy fas jox ko làmmañ mi wax ko ngir ñu xam ni lii la xol fas su paree cër yi di ko jëfe ngëm yàlla ci boppam day yokk su fekkee yaa ngi jaamu yàlla day wàññeeku su fekkee yaa ngi mooy yàlla ngëm yàlla am na cafka boo xam ni ñi ko mos rek ko xam wallahi alazim am na cafka boo xam ni amul ku ko mos lu dut ñi ko mos mooy ñi nga xam ne yàlla defal na leen tawfiq ngëm yàlla na yàlla defal na ko ñu xam ni ngëm yàlla ci boppam mooy tata bi nga xam ni dafa sangewu képp ku ca dugg rek di nga mucc ñetteel bi bis ni ki tey nag tàmbaleel nga jàng suratul kahf te balaa may wax tomb bi sax ma ni xam ngeen ni bokk na ci sunna bis bu mel ni tey di aljuma nit ki su mën nee jàng suratul kër fii yonent yàlla mu ne ko jàng ci bisu aljuma yàlla da lay defal leer boo xam ne daf lay topp di la gunge di la gunge di la gunge ba àjjuma ci dellu si waat allahu akbar suratul kahf bokk na ci sunna nit ki mu ñaan yàlla mu bari lu muy julli ci yonent bi ci bisu àjjuma bokk na ci sunna mooy nit ki mu ñaan yàlla yonent yàlla bi ne na waxtoo ngi ci àjjuma woo xam ni ku ko ñaan yàlla yàlla nangul la la ngay ñaan li gën a wér ci waxu boroom xam-xam yi donte am nag juuyoo mooy diggante tàkkusaan la ak timis mooy li gën a wér insha suuratul kahfi jéem koo jàng am na ay riwaay yu wax ni fukki aay yu njëkk ci suuratul kahfi am yu ni déedéet juróomi fukki aay ya mujj ci suuratul kahfi te li gën a kéenaani mooy ñaari wax yooyu yëpp bu nekk wér na moo tax borom xam-xam yi ni ñu ko boolee mooy balaa nga fi nekk di sonn naan bii laa dubee jàngal saar bi yëpp ndax saar bi guddut ba tëxalee mokkal kon jàngal suuratul kahfi ñenn ci borom xam-xam ñu ne sax waaw lan moo tax ñu taamu suuratul kahfi ñu ni bokk na ci xikma yi mooy xam ngeen suuratul kahfi boo jàngee tafsir bi da ngay gis ni yàlla mi ngay waxtaanee asxaabul kër muy ñooñu nga xam dañoo daje woon ak buur bu saay-saay buur ba nar leen a jommal ñu nekk ay jeunes yu dëgër seen ngëm yàlla yàlla tàmmal leen ko bañ mucc ca ñu ne yu mel noona soo ko jàngee kat mën na laa fàttaliwaat ñooñu nañ dëgëree woon bu ko defee di nga gën a dëgër ci ma fitni masiixu dajjaal am na ñu ne même bu dul loolu sax suuratul kahf yàlla da cee def ay ajaayib ay kaawteef yoo xam ne boo ko gisee beneen kaawteef boo gisee dootu la jaaxal kon mbokk yi suuratul kahfi bokk na ci yi nga xamante ni nit ci war na koo a kon duñu jeexal lu dul wax ju am solo joo xam ni imaam ju mag moo ko wax ju ñuy wax as-Safarini ci téeréem boobu nga xam ni moom la tuddee lawaamiul asrar al bahiya mu ni jaadu na ci bépp borom xam-xam ku yàlla dénk ak lépp ci xam-xam jaadu na ca kooka mu wasaare xadiis yi wax ci masiixu dajjal ba xale yi ko ba mag ñi dégg ko ba góor ñi dégg ko ba jigéen ñi dégg ko mu ne rawatina sunu jamono jii nga xam ni fitna ci boppam daa muur lépp rawatina sunu jamono jii nga xamante ni nattu yàlla yi dafa bari sunna réer bi daa ubbi ay béjjënam di yuqatiku ca kaw waaye mu mujj dem ba li ñuy jaamoo yàlla muy ay bidaa loolaa wér waaye la yonent bi jàngaloon loolaa wér di fi nun mu ni kon jaar na képp ku yàlla dénk ci xam-xam as lépp mu ni nga fexe wasaare xadiis yi masix da jaba nit ñi dégg ko ci bunt boobu nuy yaakaar ni kon yàlla mën a jottali lenn ci li nga xamante ni mooy fitnay masih dajjal nu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala ci turam yu sell yi ak melokaanam yi kawe yi nga xam ni kenn nirlewu ko kenn kenn nirlewu ko moom bokklewu ko kenn mooy borom aras ju màgg ju tedd ja yal na yàlla boole ñu ci jaamam yi nga xam ni al muxlisin al muxlasin nu ngi ñaan yàlla mu subhanahu wa taala mu boole ñu ci jaamam yi nga xam ni du leen xañ yiwu jottali ak yiw déglu ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ci jaamam yi nga xam ni seen i jëf yépp yàlla day kontaan ca moom waaye seen i bàkkaar yépp la suñu borom di boole far waaye seen i jëfit yàlla subhanahu wa ta'ala nangul leen ko dimbal leen ci sellal ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala góorgóorlu gi ñuy def bay déglu góorgóorlu gi ñuy def bay jaamu yàlla yal na yàlla teetal soril randale sunu xar kanam yi ak sawar ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala aljana ja gën a kawe muy firdaws allahumma inna nas'aluka al firdaws al a'la allahumma inna nasaluka alfirdawsa al a'la allahumma inna nasaluka alfirdawsa al a'la allahumma inna na'uudu bika min adabi jahannam inna adabaha kana gharama allahumma inna na'uudu bika min adabi alqabri allahumma inna na'uudu bika min adabi jahannam allahumma inna na'uudu bika min fitnati almasih addajjal اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه